ngay borom xam-xam nekk koo xam ne jiite imaam yi macha allah yàlla yàlla guddal fan bi. Eh, ñuy jël xale yi nga xam ne ñu ngi leen di ñii ñuy dagg ñaar dañoo soxla ci lenn ci ñoom lan ngay dénk tey réew mi yëpp jullit bi loolu leen dénk ci loolu. alhamdulilah dama jàpp ne maa ngi toog ak bureau imaam yi El Hadj Ousmane Sarr mii daanaka ma nekkut ci bureau imaam moo fay nekk ak El Hadj Moustapha Ndaw léegi laa koy wax ne que maa ngi tukki am na tukki. muñ war a def ci réew mi wax ak imaam yi léegi teg naa ko ci sa loxo ak Moustapha ngeen seet gox bu nekk ñan ñoo fa war a dem waaye musiba yi ñu dal ci réew mi dafa am ku ko teg bëgguma koo tudd ci rajo ndax li fi nekkoon te alquran waxoon ko mooy ku rey bakkan te tey ko ñu rey ko dafa am ku fi ñëw dindi ko ba loola bañ ko dindee ba léegi bés bu na nga dégg ku ñu rey parce que dara du ko ca fekk tëj tuuti rek bàyyi damay wax ne peine de mort bi fi nekkoon ñu fekk ko fi am ku ñëw dindi ko ci turu lii ak turu droit de l'homme ma ne bu fekkee ne droit de l'homme day protéger ba ku rey duñ la rey kon droit de l'homme nit ki toog ci këram nit ñëw ci péeru fekk ko xeex ak moom rey ko hmm. ñu ne ko kee duñ ko jàpp ko kon droit de l'homme criminel bi lay protéger def ko ci bàkkaar bi saay-saay boobu lay protéger hmm. ki fekk këram rey ko nag moom droit de l'homme du ci wax dara moo tax ma ne droit de l'homme ak loi yi nga xam ne mooy loi yi àddina moo xam ne seen seen ñoo ko wote wala ci fenn ñoom ñëpp ay criminel lañ mhm. defkati bàkkaar lañ ndax du ñu aar mukk ki ñu rey mhm. moo tax bés bi nag nga dégg ko ñu rey mhm. léegi rey gi dafa yomb waaye nag bi fi peine de mort day nekkee exécuté ñu fi lu may ñaari nit néewoon na waaye bi mu demee nga xam ne ku rey ni dara lu ci fekk jot ndi kon nag kii dindi peine de mort loolu bàkkaaram la loolu moo indi itam boo sàccee doom ji it dara du la ca fekk boo ko reyee it dara du la ca fekk ndax pend moor am wallahi bu doon ku rey ñu reyal def li yàlla wax katam naa fiiha an nafsa bin nafsi loolu buñ ko defoon daal di am jàmm yàlla moo bind nit ñi kenn gënu koo xam nit ñi yàlla lu mu ñu wala kum fil qisaasi xayaatun fayu mooy tax ngeen dund yi nga yaakaar ne yow mën ngaa dund te doo fayu ku def musiba dañ koy bàyyi rek wut ay avocat ñu ñuy def talfiq ak nangam ak nangam ak nangam ah kon nag loolu foofu la jóge mooy biñ dindee te peine de mort lu nekk danañu dal ndax ku rëy ni dara doo ca fekk ku sàcce gune dara doo ca fekk boo ko reyee dara doo ca fekk kon bàkkaar bi foofu la jóge kon loolu lay wax ci gune yi ñuy sàcc ak mag ñi ñuy rey yëpp mooy dindi gi ñu dindi peine nga xam ne kuréel ni dara la ci fekk looloo ko La Fayda Tijaniya s'est réalisée. Alhamdulillah.